neexaayam lépp dafay sax ndax xéewal goo mën a am ci àdduna ak barab boo mën a nekk bis dina jot nga dem ba ko fa wala barab ba dem bala fa waaye bu dee aljana nag yéen ñaar ñëpp yéen a fay nekk sax moo tax jannaati addinin ajjanay sax yooyu tajri ma ngay daw al anhaaru dex ya dexu lem dexu meew dexu ndox dexu sàngara min taxtiha tukkee ca suufi pale ya ak suufi dëkkuwaay ya خالدين بيرم نيكام نيو واي صح فيها تا الجنة سون برام نينا وزالك اللولي جزاء من موي بايو كيب كو خامنتين تزكا لا بل نبابم تي اي بكار ولقد أوحينا إلى موسى أن يسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى لغي نيغي بغا تي قصه جمتي تي بنن قصه mooy dafay atif atf la qissa ala qissa ndax sunu boroom daf ñoo njëkk a nettali tàmbalik risalex yoon ci yàlla Moussa bi mu ko yónni ca Firawna ak la ca xew wax na leen ko kon mi ngi ciy toppal qissa ñaareel mooy fan la Firawna mujj ak nguuram ak fuuyam ga mu fuuyoon naan ana rabbukumul aala ak fuuyam ga mu fuuyoon naan maa alimtu lakum min ilahin gayri fan la mujj beneen bi pour mu nekk waar ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam pour ñu xam ni tooñkat tooñkat lu mu bëri bëri doole tooñkat lu ko yàlla jay jay jay na xam ni yàlla neena lu ko waaye yàlla da koy xaare bis bis ba bu jotee rek mu alal ko xissa boobu la ñuy bëgg a jàng moo tax mu ni walla qad walaay ceg dëgg aw xëy na waxyu woon nañu ila Moussa jëm ci yantu yàlla Moussa ana luñ ko waxyu an moo di asri reñaaneel bi ibadi sama jaam yi ndax firawna mu nga continuer mettitam gam doon mettital ñi nga xamante ne ñoo gëm yàlla léegi nag ñi nga xamante ne ñoo yoon yonte yàlla Moussa est-ce que Firawna lam leen tëkk woon def na ko wala defu ko loole de ay israiliyaat daal bari na ca waaye doo ci gis ci alquran lu lay wan ni Firawna wiyal na ko doo gis lenn lu sax ci sunna luy wax ne Firawna wiyal na ko ca ñoom moo tax dañuy wax ne rek fa ca alquran yam lañu ca yam moo tax dañuy jàpp ni wiyalu ko loolu lañ koy jàpp ndax wiyal gi gis ñu fenn fa mu saxee léegi nag ñoom. na continué na ci mettitalam firawna continué na ci kéeféeram te ñoom war nañoo ñi ngi bëgg saxal seen jaamu yàlla mënuñoo am tranquille ci nit ñuy jaamoo yàlla ci biir misra léegi yàlla mi ngi xamal yonent bi di xamal jullit ñi ne itam ànd gi ngeen ànd ak yonent bi ak loraange gi ñu leen di teg kenn xa kenn kenn umpalewul loraange gi nga xamante ne moom la Bilaal doon dekk kenn umpalewul loraange gi nga xamante ne moom la xabaab doon deg kenn umpalewul loraange gi nga xamante ne moom la ñoom sohe bu doon deg kenn umpalewul loraange yi nga xamante ne moom la saxaaba yi gëmoon yonent bi salaa salaam doon deg mi ngi leen di xamal ni toujours bis bu demee ba mu metti ba ñu nar leen a gêné pour ngeen doxal seen wàllu diine suufas yàlla yaatu na jóge leen fii ngeen dem beneen barab ndax ñoom noonu la niti fira niti nitti ay Moussa ya defoon moo tax yàlla wax ne ko fa asri reñaaneel bi ibadi sama jaam yi ndax ñépp dañ dul jaami yàlla ahake dañoo am lu ñu tuddee abdu abdu am ñaari jamu abdu mooy firi jaam abid mooy jamu abdu mooy ñépp ñi nangul yàlla ak ñi nangulul yàlla ñépp dugg nañ ci biir abid waaye nag foo gisee yàlla ne ibaad mooy ñi ko nangul ci biiri jaamam ñi mooy nekk jamu abdu alquran wax na ibadun mukramun alquran wax na inna ibadi laysa laka alayhim sultan alquran wax na wa ibadu rahman alladina yamshuna ala lardi hawna alquran moo waxaat ne inna ibadi mooy jaam yi ko nangul te gëm ma reñaane leen nga génne leen dëkk bi ndax ñu jaar ci yoon boo xamante ni dañu topp guddi gi ndax mu ëpp sutura ba firaw na du leen mën a dab léegi nag alquran dafay jël lu bëri di ko indi feneen mu ni ko boo demee ba àgg ci géej gi fadrib dóoral yet wi ngir mu defalat ñeel leen tariqan aw yoon yabasan bu wow kong boo xamante ni ku ca jaar du tarxiis te du tooy fil baxri ci géej gi ah def ko laa taxaafa bul ragal yow yontel musa Moussa ak ñi nga àndal dara kan ak dab mooy firawna du leen mën a dab waaye biir géej géej ngi di jaar wala taxsha bul ragal itam lap ci géej kon dañuy seeti suratu shuara falamma tara aljamaani qala ashabu musa inna la mudrakun qala inna ma'i rabbi sayahdini alquran ma ngi netele fofu te suratu shuara ni bi nga xamanteni yonte la musa jefandiko na ndigalal yalla ba anak ak ñamu andal ñu top guddi gi ba njël di jot muy commencé leer lañu seen pënd buy ñew di pënd di pënd fir'auna ak ñamu andal pour dab nitu Musa. yi alquran neena na falamma ba nga xamanteni tara a ma ngay jakarlo moy wa nitu fir'auna ya ña ngay seen nitu Musa, yi nitu Musa yi biñu gesto geestoo ngay seen fir'auna ak mbolom ñu leen di daf si ana lan nañu wax seen bo fu mu toll modi inna la ey fu ñu jëm ñi de dañu dab ndax geej mo nek suñu kanam waye yon yàlla Musa boobu ni Jibril mi nga and ak mom xamna ni yalla mi nga and ak mom te yabal na lu tolloog euh, fanweri malaka ak ñett yu gunge Jibril pour ñu sobe leen mu len inna maay rabbi sa yahdini te maayatullahi ku ko am loo dugg am ca ndam waaw fet yonte Yàlla Moussa daal jël yet wi daldi kay koy dóor ci géej gi mu def ay pont fukki pont ak ñaar seti yàqu bi giir gune ak fa mu jaar bi ñuy dem di dem ba jéggi yont yàlla Moussa bëgg gaaw eh, dóor yat wi ndax bañ ñële ñëw yàlla ne ko fatrikil bahra rëhwan bul gaawantu bàyyil géej gi dal tuuti ba ñu gaa yi dugg ba nga xamante ni fasu na ak mbooloo moomu àndal fasu këcc ca mujj ñoom ñépp dugg nañ ci biir nga soog a dóor yat wi ba ñépp duggee ah fa tabarakallahu mu door yet ba ñépp lam moo tax alquran ne fa atbaahum ba ñuy dem topp na leen firawnu buur bu fuy boobu firawna bi junuudihi ànd ak lëlëm ba waaye sunu borom nee na cey bisu kero la xew kenn mënu la ko nettali moo tax dama koy lëm moo tax fa gashiyahum minal al yammi ma gashiyahum nee na boo fekkoon ne yow da mën a seetaan di xool kero film bi ni mu tëddee nit nitu yonte yàlla Moussa yi rombee géej gi ak Firawna ba mu duggee ba mu yàgg muy poñe fas wi nee na fasu Jibril jaar fa romb fa di aw wajan mu topp ko nee na ba ñoom ñëpp ñu dugg ba ndox mi di leen labal kero mettit beeg jooy yeeg yuuxu yi wuy samandee ji na mu jibee sunu borom nee na kenn mun la ma mun la wax na mu mel waaye xoolal Firawna na mu muusee ما غاي جيما واخنان لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل با بام با ببجا ببجا بغا با بغا لا اله الا الله ومفسرون ينينا نيو جبريل مو تيب سي بنو جيج نكو در سي لامين بي مو موي بور مبا الله بي بور مبا نيا سوبي متاخ موني فغشيهم كرمورنا لين من اليم تي ما غشيهم لين فمور daf ko lëm noo ko mën a déggee rek noo ko mën a seetaanee rek noo ko mën a xalaatee rek àgg na fa ko raw sun borom nee na film boobu jeex na Firawna ñu ko toppoon wax dëgg yàlla sànk na leen Firawna ñu ko toppoon wax dëgg yàlla tegu leen ci yoonu njub moo tax mu ni wa addala sànk na Firawnu Firawna qawmahu aw nitam ci woo gim leen doon woo pour ñu jaamu ko wa ma hada moom Firawna de wax dëgg yàlla gindi wu leen moom kay dafa tàbbi ci alkande ak cànkute tàbbalaale leen ci leen sunu borom nag jeexal foofu di waxat ak waa bani israil di seti yaqub mun yaa bani israil yéen seti qad anjaynaakum dëgg musal naa leen min adduwikum te seen noon boobee di firawna màlla bal ko ngeen mucci ca mbugal gim leen doon teg ak néewal doole gim leen doon néewal doole man yàlla wa waat naa ko ma dëlanteeg yéen pour jox leen téere boo xamante ni moom ngeen di topp ay orientation di topp ay njàngaleem la mu santaana ngeen jëfandikoo ko la mu tere ngeen bàyyi ko jaaniba tuuri ca wàlli montagne tuuri sinaaba al ayman bu ngeen jàkkaarloog duuru Sinaa fa len di féete côté jor sun borom neena na wa nazzalnaa ñu wacce alaykum ci yéen al manna al mannu dafa weex motax ken du ko meuna a lem al mannu ben xéewal la bu yàlla wàcce won ci ñom waye dafa mel ne lem mag ñi diko ko xëbu lem ndax mom lañ ko meuna nurolel wasalwa ak xéti njanaaw comme mag ñi dañ koy nuraleeg samaan moo tax ñu naan ngëm wasal waa ak ngëm meen waaw mani leen ku lu lekk leen min tayibaati ma ci tukkee ci yu teey yi la nga xamante ne razaq naa ko wërsëgal nañ leen ko gis nga xéewal googu yàlla moo ko wàcce woon ci ñoom mooy bi nga xamante ne yàlla labal na na léegi lebal googu mu lebal firawna ñoom waa bani israil yëg nañu ne léegi ah coono biñ doon daj ci buur bu fuy boobu buur bu dëng boobu buur bu kàcceero boobu loolu moom jeex na kon nag yàlla nee na yéen musal naa leen musal naa leen waaye gis nga indi na leen xéewalu mucc ndax mucc kat xéewal la de mucc xéewal la waaye yàlla itam tudd indi leen xéewalu diine mooy waadna lakum mooy bi nga xamante ne dël na leen pour jox leen téere waaye itam mi ngi leen di fàttali beneen xéewal muy xéewalu adduna xéewalu adduna mooy wa nazalna alaykumul manna wa salwa kon ñetti xéewal yi képp ku mu ñëw ci yow li war mooy sant waaye ñoom waa bani israil des santuñu léegi nag xanaa dina leen jaaxal ci alquran alquran waxoon na ci suratul baqara وانزل وزللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى سوره البقره دافاني وانزلنا وايغا غيس في تاي دافاني ونزلنا عليكم المن والسلوى فلي خيوال غبي مي واتي لا واي انزال بي من نيك تاي دنيو صبا واي يالا ونزلنا بور واني مبير مي دا دون توبالو بيس بو ني موي واتي ونزلنا عليكم المن والسلوى kon ba nek ci suratul baqara moom mooy mandargal wàcc gi way lay mandargal sax gi moy wa nazzalna alaykum man wa wasalwa ci suratul taha sun borom ne len lek len lek len aha lek len lek len waye nak wala tataxaw bu len ëppal wala tataxaw bu len bew wala tataxaw bu len weddi xewelu yàlla wa wala tataxaw fihi bu leen ci jëfëndiko jëfëndiko buy wane ni yéen santu len ndax jox naa leen ñetti xéewal sant ma rek mom moy moy moy li yal moy li yàlla su ko defé bu ngeen ko defé da fa yahil dina wàcc alaykum ci yéen gade bi sama sànja man yàlla muy sama mer te man képp ko xamanteni yahlil wàcc na alayhi ci mom gade bi sama mer ah kooku de faqad hawa dëgg alkuna kooku nee na dërr ci kàmbuk alkande waaw léegi nag ñoom la leen yàlla doon moytuloo wax dëgg yàlla def nañu ko ndax dem nañu ba mu yàgg ñu naan yoon ci yàlla Moussa dégg nga lan nasbira ala ala taamin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tanbitu l-ard من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير بغنك سوخلا احبطوا مصر فين لكم ما سالتم فوف لا مجي واو لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها فوف لا مجي تي يالا ولا تدغوا فيه فيهل عليكم غدبي ndax wa man yahlil alayhi ghadabi faqad hawa waaye nag suñu borom fumu mu lo dana andi buntu yaakaar pour wal len ba legi mo nek djegla kon moo mo ne way inni wor na ni man yàlla la gafaarun djegla kon la liman ñel kep ko xamanteni taba tub na bayiko ci bokale wa amanu mu gëm wetal yàlla wa amila mu jëf salihan fartaat sunna summa topp ihtada mu sax cëngëm ngëm ga loolu la Abdullah ibn Abbas wax boo demee ci aljaami li ahkaamil Qur'an bu Qurtubi andi na fa lu mat juróom benn waxin ci juróom benn wax ci lu muy wunnu su mahtada ji waaye nee na nag moom ba mu àndal mooy bu Abdullah ibn Abbas su mahtada topp mu gindi ko sax ci ngëm yàlla ji léegi nag ñoo ngi bëgg a jàng benn qissa boo xamante ni bi nga xamanteni yàlla dogal na mbir ya jeex na firawna lab na waa bani israil legi nak kon dañu soxla man hëj te seen man hëj ci yàlla la wara bayiko kon nak fala budde yàlla jox yonte yàlla musa mi nga xamne moy mooy seenu yonent rendez-vous pour mu jox ko téré li yàlla bëgg na len if allah tafal su ko defee li muy mu def ko ci téré ba la muy tere mu def ko ca téere ba léegi nag fa mu ko war a jëlee ji moo di ah, fa nga xamante ni fa la ko yàlla jox rendez-vous ca xuuru Sina kon yaa ngi gis ne mën hëjëm moom yonent yàlla Moussa ci tawreet la nekk waaye booy xool ay xar baaxam ma nga nekk ca loxaam ba ma nga nekk ca yatam ba ma nga nekk ca tis o aayaat ya waaye boo xoolee ci yàlla daawud man hëjam if ali yàlla ak laa taf al def leen ak bàyyi leen ma nga nekkoon ca téeréem bañ naan zabuur waaye booy xool xar baax ya ko yàlla jox yi teg tegtale ne moom ab yonent la ma nga nekkoon ci ci yàlla daawud bu daan sàbbal yàlla lépp lu mu wax montagne yi dañ koy aw waaye itam bokk na ci kéemaan bi ko yàlla jox ما wa له الحديد lhadida an سابقات وقدر في qadir ما sard ما نويلون وين na وين تي لخام ba mel ni nit ki di ràbbe ci wëñam mom non bu daan jël weñ weñ day noy ci mom ko wëñ mu ràbbu ci la ko neex boo xolé yonte yàlla isa mom itam yàlla wàcce woon na mën hëjam moy def leen ak bayi leen man ko joxon téré bu naan linjiil mooy if al ak la tafali yàlla waaye boo seetee man di xar bax yi nga xamanteni mom la ko yàlla joxone mom mo nekkon képp ko xamanteni fatuna mom dal mo man la dekki ndax médecine mo xewon ci jamonoom te médecin nak ah wax di yàlla man manam agul ci ko faatu nak mu dal di lay dekkal waxuma sax ko rep man la wéral waw waaye nak mom yàlla joxone ko kéemaan bobu benen bi moy ibraul akmah wal abras moy ko judd waale silma xam mu mat mu mat bu ne bismillah rek raay sa kanam nga daal di gis kéemaan boobu la ko yàlla joxoon kon ñoom boo xoolee ñoom ñëpp seen mën hëj mooy la yàlla bëgg ci santaane ki tere ma nga ca seen téere waaye seen i kéemaan dafa beru ca bokkul ak téere ya sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom de bi mu ñëwee téere bii di alquran alquran bi mën hëj la li yàlla santaane bëgg ñu def ko lépp a ngi ci li yàlla santaane tere ko bëgg ñu bàyyi ko lépp a ngi ci kon kay bii téere mën hëj la waaye est-ce que ndax amul yeneen kéemaan kéemaan yi yonent bi kenn mënu ko takk waaye téere bi en même temps dafa nekk mujiza waaw waaw mooy benn kéemaan la boo xamante ni doomu aadama ba àdduna tukki du indi lu ni mel kon téere bi dafa nekk mën hëj ba pare nekk kéemaan waaye yonent yooyu bu ñu yoon ci yàlla Moussa kéemaanam yooyu yépp bu du buñ gëmul woon alquran duñu ko gëm bu ñu xamul woon alquran duñu ko xam dañu koy nettali yonent yàlla daawud bu ñu alquran du ñu xam histoire am bu alquran du ñu gëm ay kéemaanam yonent yàlla isa li ci yàlla wax bu ñu alquran du ñu ko gëm bu ñu alquran du ñu ko xam léegi nag ñun ñii bu ñu ana lan mooy seen kéemaanu yonent ñun de dañ naan suñ kéemaanu yonent ba àdduna tukki mooy damay yëkkati alquran ne la am li mooy sama kemanu yonent alquran moo إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين شنو برام نيوانا آه ين أي جانج كتنجين ين ني ديوامك ndax yéen kat xam ngeen arab xam ngeen ay yoonam xam ngeen ay tëggiinam xanaa du yéen yéenay organise ca Okaasa ndax du yéen yéenay organiser ay foire yoo xamante ni dañ naan ku dàqa way ku dàqa way ñu jël sa way woowu bind ko anoor aj ko ci kaaba gi kon yéen xam ngeen lan mooy wax xanaa jàng ngeen mu àllaqaat yi bi Imral Qaysi nga xam ne moom da daan jël pee waa ci shuaraul jahiliya moom moo ci dàqoon way أمن نعم، القفاء نبكي من ذكرى حبيب ومنزل بسقط لواء بين الدخول فح بين الدخول فحومل فتودح فالمقرات لم يعفر اسمها لما نسجتها من جنوب والشمعلي وترى بعر الارام في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفل وقوفا بها الصحب علي مطيهم يقول لا تهلك أسن وتجملي واو ولك جيت منك أني غداة البين يوم تحمل لدى سمرات الحي ناقف حنزلي واو كون خم القرآن bokkul ak moom ku man rek defal ku man defal moo tax alquran moom mooy kéemaan waaye en même di nekk mën hëj moom yonent yàlla Moussa mën hëjam nag yàlla moom la ñuy nettali gannaaw ba mu ñu wanee lenn ci kéemaanam ba mu ko nee ñëwal ca barab ba te nga tànn juróom-ñaar fukk ci nuqaba yi yonent yàlla Moussa dem war fa am fanweeri fan gannaaw ga la ko yàlla continuer ba mu nekk ñeent fukki fan ba mu fa amee ñaar fukki fan rek yàlla ne ko ah waa yow Moussa ana sa gaañi yont yàlla Moussa ne ko gaa yaa ngi ñëw léegi ñu agsi dama leen dama leen a jiitu rek nekk fi li torda pour nga kontaan yàlla ne ko mbir xew na sa gannaaw de gaa yaa ngay jaamu xërëm gaa yaa ngay jaamu xërëm <laughs> yont yàlla Moussa il faut mu continuer yàlla yont yàlla Moussa continuer ba ba ba jot tawreetam ba mu dikkee la xew loolu lañu ñu alquran di bëgg a nettali waaye en même temps alquran mi ñuy bëgg a nettali li waral xërëm yi lan la di Moussa Samiri yu ma nga xamante ne moo nekk seen sëriñ ca loola alquran dinañu ko wax waaye mi ngi xamal ni ndekete yoo itam alal jullewul coono lay doon ca boroom ndax ñoom ba ñuy génn pour réeral waa bani is pour réeral niti firawna yi di xibti yi dañ leen a àbb ay takkaay ne leen ñun dañoo amum xew pour ñoom ñu bañ a xam ni ñoom dañuy daw dañoo amum xew kenn ku nekk koñ ba nga dëkk danga ngaa abbu ña nga dëkkal ne la aal ma say takkaay man kat damaa jëmum xew léegi nag bi leen yàlla labalee ñoom ñu mucc alal jooju dafa diis ci seen loxo alal jooju la Moussa Samiri yi profitoo ne leen gis ngeen Moussa mee dem Moussa mee dem ñëwul mooy. moo di li ko tee ñëw mooy bàkkaar yi ngeen def alal yi ngeen abboon kon sànni leen ko fii ci safara si ñépp sànni mu sànni mu tëggal leen ci benn yëkku or def ci turu te bopp ba ak ca gannaaw ga ngelaw li di ko ëpp muy nàññ mun leen kii mooy yàllay Moussa ji Moussa dafa sànku dafa réer waaye yàlla ji muy mi ngi nii ba gaa yee jaamu xiram alquran loolu la ñuy bëgg a nettali ci tënk moo tax sun borom ne ko wa ma ajalaka moo yow yonte la Moussa moo lu la yàkkamtiloo ba nga ñëw an qawmika bàyyi saw nit avant rendez-vous bi pour jël si tawrit bi yaa Moussa yow Moussa xaala yonte la Moussa hum ñoom ulaa i ñoo ngi nii ñoo ngi fii jege ma léegi ñu ñoo ngi ñëw ala ci sama gannaaw hum ulaa i ci sama gannaaw di ñëw wa ajiltu damaa gaaw yow yàlla ilayka jëm ci yow kama gaaw ñëw jiitu leen rabbi yow sama borom li tarda ngir na nga kontaan kon gis nga defa jiital ngànt avant muy indi aw lay qaala sun borom ne ko fa inna naka ñun yàlla qad fatan naa nattu nañu qawmaka saw nit min baadika ci sa gannaaw ñoom de ña ngay jaamu xéram xamal ne wa addallahum sànk na leen assaamiri yu saamiri yu ba ñoom ña ngay jaamu aw yëkk samir yu dañu netal histoire bu ci accès inshallah faraja adal di delu gannaaw ba miqa ba Musa musa yonte ila qawmihi jëm ci nitam nya ghadbana hala kawnihi ma nga mer ba futtu waw asifan ma nga jàq ak ndax li gan li nga xamantene daj ak aw nitam ba fi ñu jaar ñu war ko ci gannaawam qala ma nga nan ya qawmi sama nit bam accès alam yaidkum ndax defa leen a dellul rabbukum seen borom waadan del loo xam ne ku ko topp sa àdduna rafet ku ko topp sa àllaaxira rafet muy tawreet muy waadan xasanan kon dellu rafet afa qaala moo du ndax dafa yàgg aleykum ci yéen al ahdu wëllëre bi muy diir bi nga muy al ahdu mooy firi géej al ahdu ci arab mooy firi géej al ahdu géej gi mooy bi ma jógee ci yéen ndax diir bi dafa yàgg diir bi kay yàggul ñaar fukki fan ñeent fukki fan yàggul kon yéen suma faatoo lan mooy xew kon yàllaa ngi xamal yoon ci yàlla muhammad ne ko juif yi lii nii ñu teggee seen tànk ci li leen yoon ci yàlla Moussa rëddaloon bu la jaaxal ndax yoon ci yàlla Moussa fan yu néew la leen wan gannaaw ñu war ko kon lii ñu nekk seen ndëngate gi dinaa la wax cosaan la fan la moo tax mu leen afa baala aleykumul ahd am arattum wala boog ndax dangeen ngeen a namm ndax dëj gi moom yàggul kon lii ngeen def yéen a ko tey te comme yéen ko tey wuuteeg sama ndigal ndigalal yàlla te ku tey wuute sama ndigal ak wuute wuuteleeg yàlla yow yaa tey sàkku merum yàlla ndax képp ku moy yàlla wuuteeg sama ndigal merum yàlla wàcc sa kaw moo tax kon am arattum wala boog ndax da ngeen a namm an la bu yeyee واتي عليكم تيين غضب اك مر غضب اك سانجا من ربكم بو توكي سين بروم تي سبب جامو جي نين دي جامو ييكوي فاخلفتم سبب سوسه تخ نين ووتي موعدي سما دل لما وولري وولرانتي وون اك يين نلين نيك لين تي لما لين بايي بابا نيكو ني ما ووتي وño موعدك sa dël mawidaka sa kóllëre li ñu santo ñu nekk ci bi malkina ci sunu nammeel bi malkina ci sunu bopp dañoo am lu ñu tuddee almulku am tuddee almilku am lu ñu tuddee almalku malk mooy loo xamante ni yaa ko moom waaye génnul sa jëmm moo tax ñu koy tuddee nammeel ak ak ak ak kàttan mooy du génn génnu la boo milk mooy moomeel bu la génn mooy man nga moom oto bi man nga moom jàkka ji man nga moom téere bi man nga moom leneen mooy moom nga ba moom lu la génn boo nee mulku nag mooy nga moom lenn moomaale ña ko moom mooy yilif ba yilifaale ña yilif loola loolu mooy almulku moo tax ñu ko tuddee nguur moo tax mu ni ñun de defewuñu ko ak sunu sago defewuñu ko sunu sago waaw maax laf naa wuute wu ñoog maw idaka sa wëllëre bi malki naa ci sunu sago walakin naa wante nekk ñun xommil naa def ñoo yen aw zaran ay diis diis min zinatal qawmi yu tukkee ci taaru nitu firawna ya ci àbb gi ñu àbboon seeni i takkaay ñu ne ñu lii de ay bàkkaar la yu nekk ci yéen tant que sànniwu leen ko du ngeen oyof lolu motax ñu sànni ko motax fa qazafnaha sànni nañu ko ca safara sa nga xamantene mom la samir yu sant ne nañ ko fa sànni motax mu ne fa kadhalika nañu sanne sunuy takkay naka non alqala sanne ak saamir yu samir yu samir yu dafa mus comme moy sen kilifa ñom qazfu lañu def moy xërr mom ilqala def moy dafa tek ndànk fa qazafnaha fa kazalika alqa moo tax Moussa saamiri yu fa axraja mu génnee lahum ñe leen ijlan aw yëkk wu mu tëgg ca ca or boobee gannaaw ba mu ko seggee jasadaan muy ab tën bu wax muy ab yaram muy ab tën boo xamante ni ruux ca jasadaan muy ab tën muy ab tën boo xam ne la woo ñal ko xuwaarun ak nañ ñi ak nañ ñi mooy ak baat bu ñuy dégg mu leen kaay leen dégg lii mooy yàllay firawna ja fa qaalum saamiri yu ak surgaam ya ko topp daal di wax nit yi Moussa yi ñu bëgg a convaincre ne leen gis ngeen haza yëkk wii ilaahukum mooy seen yàlla wa ilaahu Moussa mooy yàllay Moussa moom de dafa dem wëri ko rek waaye dafa fàtte fa nasiya Moussa dafa fàtte yàllaam ji fii kon nag du ngeen ko gis sunu borom di leen laaj laaju tawbiix ne xoolal ma ñii rek ab yëkk boo defar kon mi ngi xasaale waa màkk ñu jël ay xeer yett ko di ko jaamu jël ay weñ tëgg ko di ko jaamu demoon nañu ñoom waa màkk ba àgg ci kenn ku ne am nga yàlla ci sa néeg am nga yàlla ci sa kër yàlla néeg gi booy génn néeg bi moom ngay tàggu yàllay kër gi booy génn kër gi moom ngay tàggu ak yàlla yi nga xamante ni comme ñoom hubal bu ñu amee lu ñuy tuur ci deret ak ñu yóbbu ko fa am fale laata am fale manaata am fale uzza am na ci ñoo xamante ne dem nañu ba àgg ci xam ngeen euh, sunguf mooy bele bi ñu def ko comme farine daa am na ñoo xamante àgg nañ ci ba ci defar ay yàlla ay yàlla yoo xamante ne yàllay farine la ak yàllay sunguf muy dugub ju ñu wal ba pare xam ngeen lool ci cere la jeeg ak ci fondeek yu ma xamul waaye gis nga beneen yàlla nattoo xiif kenn ku ne jël sa yàlla janga defoon nga xooj ko daal kay daal ci def suukar daal di lekk ndax xiif baa ngi leen di bëgg rey waaw moo tax yàlla yooyu sunu borom gis nga mi ngi leen di gaaral ne ñoom ñi jàppoon yàllay xëram woowu ñoom waa bani israil yàlla ne afala yaraw na ah ndax dañuy jaamu xëram bi ah ndax dañoo tàqali ko seen sago ba falaa yaraw na du ñu gis ne an naka luy mbir tey mbir an mu xaffafa la min athaqila boo nee an da ngay am an ak laa naafiya bi nga jël an ji idgham ko ci laa ji moo tax nga andi allah an ji nekk mu xafafa min athaqila waaw borom ibnu malik waxoon na ko in tuxafaf anna fasmuha stakan wal xabara jacal jumlatan min baadi an wa in yakun ficlan wa lam yakun duca wa lam yakun tasrifuhu mumtanica فالأحسن الفصل بقط أو نفي أو تنفيس أو لو وقليل ذكر لو كون نك موتاخ بيم اندي ان مو با بايكو تي من الثقيله اسم با دا كاي حذف دمير الشعن لي دون لا واو نفي فتبارك الله موتاخ شيخ تيجان جاي رضي الله عنه يالنا يالا فايل نيكو فتبارك الله فتبارك الله na yàlla fayal ñu ko yaraw na am naka lay mbir tey mbir laa yar jeew moom yëkk du delloo xawlan genn tontu ilay jëm ci moom bu ñu ko woowee du leen wuyu wala yamliku yilifalut lahum ñel leen durran genn ku loraange gum leen di jañal wala naf andu jégee ni genn ku njariñ gum leen di bijjël te bañ ca nekkee wala xadd haaruna doxoon na rolam ولقد ولا تدق وخن لهم نيلن هارون ينتل هارون من قبل تنجك دفكو دفا حذف مداف اليه باللفظ ونيه موتاخ وخل من قبل مو بيدال كو تدام من قبل اي من قبل ان يرجع موسى يا قوم ين سما مبولو انما فتنتم يين دال خملني درن كولنتي لودول اك فتنه غن لين تك بيتي njëkk wi ngeen di jaamu xam leen wa inna rabbakum war na ne seen borom moos arrahmaanu mooy yàlla mi nga xamante ne mooy def ta tajalli ci sifatu rahmaan ba ngeen am ba ngeen xéewaloo ba ngeen mel nii ngeen mel kon nag fa tabiu nii topp leen ma ci jaamu yàlla moomee wa atiwu te ngeen topp amri sama ndigal ci jëfandikoo loole xaaloo ñu ne woon ko ñoom tontu woon ko ne ko ñun daal xamal yow Haaruna lan nabraha du ñu deñ mukk mukk mukk anke fii ne di way boof ne groupe di sukk di jaamu alayhi yëkk wi hatta yarjaa bat dellu si ilay naa jëm ci ñun Moussa Moussa ñoom foofu lañ nekk kon mooy nañu ndigalal Haaruna incha allah bu subaa ñu xool Moussa bi mu dikkee nan la nan la def lan la wax incha allah ñu àggale ko suba ak jàmm yal yàlla nangul ñu lu ci jaar yoon mu def ko yiw gisileeg suñuy misaanu xasanaat lu ci njuumte yàlla yàlla jéggal ñu ko matuñu bismillah allahumma